yàlla mooy kuy toj pepp yi génne gàncax yi mooy kuy toj saal yi génne garab yi de li shaqil xabbaa ji xotti pepp mala ani nabaati mu génne gàncax ga war na waa mu xotti saal ba naxli mu génne tàndar ma war a laa wax de dana génne moom yàlla alxayaa ji dund meneen mayiti jaaji de waaw kal insaan ni ki doomu aadama wattaay rek picc waaw insaan doomu aadama moo génne mais nu doqal ma te ma nii dafa dee doomu aadama ma ngay dund wa taayiru picc yàlla nga ko génnee minal baytati ci nen la génnee de te nen dafa dee rek laa wax waaye picc dafay dund yàlla mi mën a génnee aji dund ci dee mën naa dekkil doomu aadama rek laa wax de waaw gannaaw dee ndax nen ak toqal ma niyu waaw defar ko ba muy nekk luy dund looloo gën a jafe rek laa wax de nit ku dee ba pare nga dékkilaat ko wala yàlla dana génne ku gëm yàlla ci ab kéeféer bàyyi mën naa bon doom ji ñëw baax rek laa wax de wa muxrijul mayiti mu aji génnee aji dee eh, dégg nga anut fatu toq ma nii wala bay ak nen meneen aj yi ci aji dund yàlla yi dana fekk luy dund ba pare mu daal ci génne lu dee rek laa wax de kooku yàlla dana ko def fekk luy dund mu daal ci génne dee loolu yàlla dana ko def rek laa de moo tax dana fekk doomu aadama buy dund mu génne ci dégg nga waaw dégg mu def ko mujj dee dana fekk waaw waajuru waaw baax ku gëm yàlla génne ca doom ju xees de kon yàlla génne na ji dee ca ji dundu waaye mën naa fekk it dégg nga waa wala boog dégg nga waa toqam doomu aadama buy dund mu génne ci toqam mën ta dafa de wala picc muy dund mu génne ci nen te nen dafa dee rek <coughs> alhamdulilah laa wax de kon yàlla ngoogu faaliqul habbi moo ji toj peppu wan na waa ak saalu tàndarma bu leen xeeb lii lii yombut kenn mënu ko lu ma yàlla jël saalu bi wala pepp mi toj ko ci gàncax gàncax woowu nga génne ci waaw pepp ca waaw wala nga génne waay waaw meññet rek laa de kooku yàlla rek ko tam te loolu na lu bari loolu war na kat nag yàlla boo xoolee garab yi rek war a dellu ci yàlla ndax garab yi seen ak cosaan dégg nga jiwu ndaw la woon waaw yàlla xotti ko daal waaw gàncax mujj ko def ko peeru garab gu dëgër mujj ko defali bànqaas defali ko xob de ba defali ko meññeel yu waaw xéeme te niroo caf nga loolu kimtaan la ci kimtaan yàlla yàlla rek man loolu kon génne ji dundu ci aji dee génne na aji dee mu jógee ci aji dund zaalikumul faaliqu kooku de aji xotti jiw yi almuxriju koy génne gàncaxe allahuma di yàlla rek def loolu fa naa tuufa koona kon naka lañ leen di tourné walis gëm yàlla kimtaan gu mag gi nak ngeen di jënoog moom te gëm leen borom bi rek de fa kayfa tusrafuuna kaw teef naka lañ leen di anil imani waris gëm yàlla ya maa qiyaamil balaa yi naan nag taxaw ak lay ya. lay weex tal yaa ngi nii ngeen di jënoog moom waaw su ngeen gëmul rek waaw da ngeen xees waaw waaye lay yaa ngi nii moo tax ma ne gëm yàlla ci loxoom yàlla la nekk ci ndogalam ak kàttanam wala kim tan, lay waral ni di gëm yàlla ya rek laa wax bu doon lay tax a gëm yàlla ko doon nit du weddi yonent bi di jaamuy doj xeer bi nga xam ne defut dindiwut jariñul lorewut amul plan bu mu tëral amul xel amul tuus boo ko doon jaamu junni atit di wax ak moom xam ne dégg la daan dégg mun laa tontu waa xeer wu manqué noonu ku dem ba mën koo gëm weddi yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi mu mat mi de nga xam ne loolu mbiram yàlla rek la waaye bu doon xelam doomu aadama rek du def loolu yàlla na yàlla may gëm nag faaliqul isbaahi yàlla mu aji xotti kenn suba saaqin aji xotti la moo da subi kenn ak suba nga jaayu mu aji def guddi sakanan mu dig laa wax de waaw ayis kunu dana dalee fii ci moom alxalqu bindee fi mu ne temps bu ñëpp sonnee buñ tëddee rek waaw daal di noppaliku waaw bu suba teel jotee nag waaw ñuy liggéeyaat ba sonnaat rek laa wax de yàlla mi may guddi muy noppalukaay ñeel leen ngeen di ci dalee wala waaw sant leen borom boobu rek laa wax yàlla rek def loolu. Shamsa moo def jant wal qamar ak weer usbaanan ci ab takk maanaam jant bi dafay daw ci ay xeer liim yu ñu mën takk loolu dana waral ngeen xam weer xam at yi waaw xam dund ñaata fan la xam xew-xew yi kañ la woon yàllaa leen defal jant beeg weer wi ñu ñu ñuy takk waaw yi jëriyaan ñuy daw bi xusbaanin baaga dañ koo daggane waaye bi xusbaanin moo doon ci sax li ci ak liim jant bi léppam dañ koo liim weer wi léppam dañ koo liim loolu tax na ngeen xàmme weereek at yi waaw ay it xaq baa ñuy wutuwante yàlla def loolu rek la wax de dañuy daw ci liim waaw ci wuutu wante rek de waaw bu guddi jotee rek weer wi feeñ bu bëccëg jotee jant bi feeñ de waaw weer wi daw fanweer yi waaw ñaar fukki fan ak juróom-ñeent waaw wala fanweer daal di soox waaw weer am de waaw yàlla mi leen defal loolu guddeeg bëccëg di wuutu wante ba ngeen mën a xam fan mën a xam semaine mën a xam weer mën a xam at sant leen yàlla moom rek laa wax de yàlla leen defal loolu. zalikal maskuur loolu ñu tudd taqdirul aziz yi mooy nattale yàlla mi aji not fi mulki ci nguuram wala lii mi kaa ji xam bi xalqi ci jëfam de lii lépp yàllaa ko bind moom mi nga xam ne mooy ki not ci nguuram mooy ki xam mbindeefam yi moom yàlla moo leen xam kon buur ne nañ ko sant moom mi nga xam ne moo génne doomu aadama ak picc ci toq mën yoog nen génneen dégg nga toq man yoog nen ci doomu aadama génn na lu kenn xamut ak dundam ci lu dee ci luy dund génne lu dee ci luy dund yàlla moom ne nañ ko sant mu ne borom boobu mooy kan mu ne moo leen andil suba lëndëm tërës mu xëy xëy rek andil leen suba ngeen mën a faj seen soxla yi nga ne ko lëndëm gi nag mooy lëndëm gi yàlla ko bind ngir ngeen man seen noppalu ki leen defal xewal gogu googu kay moy borom bi yelloo jam rek la wax de wa defal len jent bi ak wer wi ngeen xam wa waxtu haji waxtu julli ngeen mën xam dégg nga rek la wax de waxtu ngeen ni wa liggey ak ngeen ni wacci ak won yen waxtu ngeen wara fayante sen liggey wa yalla mi len defal bis yoyu dégg nga def ko ci ay tak ak liim ba dara pour len sant leen borom boobu rek laa wax rek kooku di yàlla huwa allazi mooy buur bi nga xam ne jaan def na lakum ñeel leen nujuuma biddiw yi i tax du ngir ngeen gindeeku bi moom fi zulmaatil barri ci leen mu jéere ji wal baxri ak géej gi mën a firas faari ci tukki yi yàlla bind na biddiw yi ngir ñu mën cee xool mën a waa kon xam-xamu biddiw googu alquran xaay wut ko xaay wut ci li xam ne wax de kon buñ demee ci di tukki géej gi lëndam war a guddi waa boo xoolee ci biddiw yi da nga mën a xam fa nga war a jublu waa yàlla mi leen defal loolu nag sant nañ ko ngeen gërëm ko qad fasal naa leeral nañ bayeen naa leeral nañ al ayaati tegtal yi wane suñ kattan ñun rek ñoo ñoo yàlla ak dara tegtal yàlla qudrat naa suñ kattan li xaw mi ñeen yàlla moo ñu xam ñi xam ñëpp danañ xam ne yàlla rek man yi ñu moom rek a man génne toppam ma nuyu ak ak nen ci doomu aadama ci njanaaw yàlla rek a man génne doomu aadama ak njanaaw ci toppam ma nuyu ak nen de yàlla man loolu ana ku ko mën na def kenn mënu ko rek moo mën a andi suba teel bu ko kenn mënu ko guddi jotee daal borom xam-xam yëpp ñu ngay tëddi nelaw di xaar rek waaw yàlla di këg waaw leer subaam bis bu yàlla dikkul kenn mënu ci dara xam ne ne loolu yàlla rek ko dogal moo ko bind yàlla mooy bind guddi ñu di ci noppalu dëgg-dëgg ku man loolu xamut waaw yàlla moo def jant be weer yi wutu wante daw ci ay furuk waaw ngeen mën a xam bis yi waaw heure yi semaine yi waaw weer yi waaw at yi wax de yooyu yëpp mbir la yoo xam ne yàlla ko def defal leen biddiw biddiw kenn bindu ko lu ma yàlla bu ngeen di tukki ba lëndëm wala ngeen jaxasoo ci géej gi bu ngeen xoolee ci biddiw rek xam fu ngeen war a jaar yàlla mi leen defal loolu waaw dëgg dëgg waaw leer loolu na leen nag ne moom rek mooy borom kàttan moom rek a man nag loolu muy jëriñ ñu xam ko mooy ñu jaamu ko rek de kon lay leer na gëm rek mbaa weddi ci fetur loo fi des waxuma sax lii waaye àddina lépp waxuma sax àddina waaye mbindeef yëpp amut kenn ku ci mos bind lu toll ni mbagam yoo amut te nag ñun ñëpp xam nañ ne lu sosu rek dafa am lu ko sos te amut ku sos lu toll ni mbëggam yoo ba yàlla ba tey rek laa de li gën a yéeme ci li defar ci jamono ji bokk na ci avion defuñ lu may jël rek matière première yi nga xam ne yàllaa ko defar boole ko daal di am avion mbindam yàlla rek lañ jël dajalee baa am avion ñooñu kat dañoo collé waaw modifié waat ku daal eh, dañoo kole rek waaye sosuñ sos mooy lu xamut musul am nga créé ko mu daal di am loolu yàlla rek ko man dégg nga tabax yi ñuy tabax ak dëkkuwaay yi suuf si yàlla ci ak ndoxam mi moom lañ jël rek daal di dajale waaw boole boole ba am dëkkuwaay demit loolu laal rek balaa ñu koo defar dañuy dem jël yàlla defar ba pare boole waaw ak yeneen door am leneen de loolu nag yàllaa ñu may loolu sax xam-xam bu ñu defaree loolu yàllaa ñu ko may waaye boo xoolee ba léegi egguñ ci mbind mbind mooy sos lu musul am doomu aadama musul am nga ñëw rek ne ko nekkal mu nekk loolu yàllaa ko man dégg nga suuf musul nekk ki nekkal suuf asamaan musul nekk ki nekkal asamaan jaww musul nekk ki nekkal jaww de mbindeef si cosaan musul am ki amal mbindeef dëgg-dëgg kooku mooy borom bi subhanahu wa taala rek mu ñu war a jaamu kooku rek moo bind ku dul moom bindul rek laa wax de waa moo tax dund ba pare di weddi yàlla waa kooku borom xel waru koo def bu weddee rek xëy na ndogal ndogalu ko jiitu waaye borom xel daal amul fu mu sukkandiku ba weddi yàlla buur a ngay lim ay kimtaanam mu ne wallazi mooy buur bi nga xam ne anshaakum sos na leen xalaqakum bind na leen min nafsin waahidatin ci benn bakkan yàllaa leen bind yéen ñëpp ci benn bakkan bakkan boobu mu jëlee ko ci suuf xam nga ne kawteefa ngoowu suuf si nga xam ne dundut waa nga jël ko dégg nga de rof ca roxo roxo yàlla rek ko mën a bind ba léegi àddina yëpp buñ dajewoon kañ gën a fonk daal di waaw tële na ñoom ñëpp ci del dafa roxo ci moom dëgg-dëgg ñooñu xam nga ne bu waaw ñoo créé li nga gis danañ mën a defar loo waaye dañ leen bind moo tax leen bind bu leen bëggee rey mënuñ ci dara de borom xam-xame àdduna yi gën a mag ñoom ñëpp buñ daje woon kiñ gën a fonk ci àdduna mënuñ ci lu mooy jooye waaw ñooñu am na ku leen yirif de jooye rek lañ ci mën a naqarlu waaye daal roxo gi mënuñ ko cee delloo moom yàlla moom nag moo bind roxo jël roxo nag def ko ci ban waaw mu nekk yàpp ak waaw di yëg waaw dëgg-dëgg loolu mbind mu kimtaan la yàlla rek man loolu yéen nag mu jël leen leen ci roxo googu eh, ci jëmm jooju mu di aadama waaw dégg nga toqat ma ci aadama moo sos waaw doomam ya ñoomi doomam ya dégg lañ lekk ci suuf gàncax gañ lekk moom la yàlla jël def ko muy toqat ma niyu moo sosaatee ni doom ba pëncëm yàlla rek noonu lay demee kon ba léegi doomu aadama ngi jugee ci suuf ndax doomu aadama dafay jugee ci gàncax gi nga xam na nii waaw dañ ko ji ci suuf waaw gàncax googu lay lekk bu ko lekkee mu def ci moom toqam xam ma yoon man nii moom nag waaw mooy jur doomu aadama juru ko sax ci ndax ma nii dana ko def dana ko def nu mob deret nu mob deret mu def ko suux def ko waaw defal ko yàq waaw defal ko yàqum bind ko bind mu yéemee taral ko nopp ak bakkan waaw wutal ko gémmiñ ak waaw loxo ak tànk ak biir waaw wutal ko toogukaay waaw ak génneekaay sobe waaw ak turukaay ndox waaw dégg nga de ak awra bu muy jotee doom nga bind mu yéeme moomu xam nga ne loolu du hasard rek laa wax de te kenn mënul wax ne moo defar lii ci loolu yàlla ko defar loolu du hasard jant bu yéeme bii saa yu xëyee fu muy lay xëyee topp ndigal nga boso jot mu so waaw may guddi gi nag mu ñëw waaw weeroo fenk giddu yee fenk waaw nit nekk ci dal ma ne mbind mu yéeme moomu waaw nga xam ne ku ñëw fekk ko ku dem ba ko fi waaw du hasard waaw amul noonu rek de ko ki ko defar na ko wër yàlla yàlla moom nag ku leen jege la moom sorewul nag moom wala si mooy buur bi nga xam ne ansaakum bind na leen خلقكم بالنار من نفس واحدة تبين بكن مدي آدم فأمنا تيين مستقر أجي صخ تروحوا منكم فمستقر أمنا أجي منكم تيين في رحمي في رحمي تبير بجيين ومستودع أمنا ندينك منكم تيين في سلبي تنقل دوم آدم دقل غور كون دوم دينك يالاكو دينكاني تنقل غور وانا فوضو دكوام ندال waaw lay cosaanam loolu lay dëkk waayam te du ko mos a génn nag waaw waaye dana jaar danañ ko dénk ay barab yu bëri mujj nañ ko dénk xaalam arwa mu def roxo ma ngay mu def ko mu nekk fa la soob yàlla yàlla def ko suuf nekk na fa la soob yàlla dégg nga yàlla daf ko muy jëmmi aadama mboolem rox yëpp yàlla dénk ko yàlla mboolem doomu aadama yëpp yàlla dénk leen digal aadama moom de waaw nekk nañ foofu la soob yàlla génn nit ki bu génnee ci ndigal doomu aadama boobu dem ci biiru jigéen ñu dénk ko fa mu sax foofu nag dal nekk fa la soob yàlla dal génn nag ci àddina si de waaw nekkab liir la soob yàlla noonu lay continuer bay waxambaane bu dëgër waaw di tukki rek dem ba màggat noonu lay demee waaw ba dee dal ñëw ñu dénkaat ko suuf la soob yàlla bu waxtu jotee ñu ko dekkil mu taxaw ci pencam yàlla waaw yàlla te ko ba pare dénk ko aljana wala sawara la soob yàlla noonu rek de waaw ba waaw lépp di dellu ci borom bi a wax de kon doomu aadama ngoogu ci tukki nekk rek kat fasal naa teqal nañu laayaat yi kawte bi wane suñ kattan waaye ñan li xaw mi ñeel ni def ñu dégg de mënuñu am benn xam-xam ci li ñuy wax waaye ñuy dégg nag moom waa wax ji la gat na lool waaye danañ ci jàngee waaw ne yàlla rek mooy kenn mu ne war a jaamu jàngee si xam-xam yu bëri leen yàlla yàlla boole ci way dégg yi wa mooy buur bi nga xam ne an sana wàccee na mina samaay tukkee ci asamaan maan taw fa axraj naa ñu daal di génnee loolu moo di iltifaat fii nekk si iltifaatun gertoo anil xëy ba ci mooy ki ndox ci asamaan ba pare ne génne nañ dégg wax ne mu génne rek laa waaye daf ne ñu génne ko rab dana ko waxee mel ni kuy wax ku fi nekkut ba ci karam rek mu ñëw di mel ni moom daal di taxawal boppam nag faax rek naa ñu génne bii seen taw boobu ay bil maa ci ndoxam taw nabaata kulli seen gàncax ak lépp lëf rek la wax de loo gis rek hmm, dégg def nañ ko gàncax waaw yàlla ngi wax kii maanaam ba léegi faaxañ naa génn nañ minu ci gàncax googu xadiran aji waaw na tax aji tooy seen mbir axdar bu daal bu naat nit génnee nag ca gàncax googu lu naat mu rafet loolu nu xuj danañu génne minu ci aji naat jooju minal xudri ci way naat ya habban pepp mutaraakiban baaje rankaloo teglante leen li ci kaw leen li yarka bu dana war yarka bu dana war baadu wa leen li baadu leen li kasanaa biril hintani ki gubbi basi rek laa wax de dégg nga mm, pepp yi dafay teglante wa minan naxli ak ci tàndarma yi min taliyaa ci njëlbeen ak fenkam yaa awalu maa yaxaju njëlbeenu la dana génn mi naa ci moom xilwaanu moo di cëgg alaa jiinun mooy cëggi tàndarma mooy pas pasi tàndarma yi ne waaw fu la ma ñu mën nekk rek laa wax de daane suñu aji jëkk de yàlla génne ci tàndar ma la cee njëkk a fekk ay cëgg waaw yu jege xarim aji jege baax do len lemin baa dañ ci len li waax nañ naa génn nañ jënnaatin ay tool basaatin ay tool waaw min anaabin yi maam yi yaa moom resin la wa zaytuna yi zaytun la wa rummaana yi gërenaan la mustabihan yay niroo ay xob wa raquma seeni xob yi niroo وغير متشابه وين رون منيت سمراس منيت نرونك وانظروا قلا يا مخاطب يني وحد نظر اعتبار قول قلم إلى سمره جمش مجنما إذا أسمر بمجك مني أو ما يبدو لنجك فين قول كيف هو نمل ويني أبن يري نجيب نمي بن يربن يقول لن ممل ده إذا إن في ذلكم نك نك نتلول لا يأتي نيكا وتنجيب نيكا تنجي dalaalaatihi wa ala qudratihi ci kàttanam ne xaw ma ñeen ñu yuminuun yooyu gëm gàncax yàlla ngi ci dox misaal yu bëri bëri bëri bëri ndax gàncax gi waaw kimtaan yu bëri ci de ana yan misaal ñoo nekk ci gàncax gàncax lu ndaw la yàlla wàccee ndox mu jugee ci asamaan taw boobu jóge ci asamaan daal dekkil gàncax ga génne ci ay xob yu nooy te nooy rafet lool xob woowu di màgg waaw ba génne meññet meññet mi fa feeñ bees dafa naqari neexul lekk mën naa forox mën naa mel mu ne waaye bu demee ba ñor daldi neex lool ñu mën koo jëriñu te loolu lépp du dara lu may jiw wa nga suuloon rek moo moo nekk nii jiw yi génne na gàncax gi génne na pol yi génne na waaw dégg nga maag la meññet ma nekk génne xob génne mbir yu bari yoo xam ne lépp ngi laxasoon ci biiram waaw yàlla génne ko rek ci kattanam rek laa wax de lenn daa feeñal lu bëri loolu lépp fii mu farax fii fi mu neex fii fii ñu mën koo jëriñoo fii mën koo jëriñoo waaw yàlla mi def loolu kooku kay mooy borom kattan rek laa wax de wajaalu def nañ lillaahi ñeel yàlla suraka way bokkaale al jinnata mooy jinne yi jël nañ jinne yi nag waa di jaamu di ko bokkaale yàlla xëy su ataawum bañ toppee jinne yi te jinne kat ku ne xam na ne waaw jaam yàlla waaye du yàlla wa xalaqahum te yàlla bind te bind na leen yàlla mi bind jinne yi bind kawteef yi ma wax yëpp kooku lañ war jaamu waaye banañ ko mën a di jinne ba léegi rek doomu aadama yaa ngi pugure oo xamante ginne yi wala jëflante ginne yi mel ni ginne yi ñoo yore ndogal yi ginne yi ay jaam lañ de waxaraqoo fent nañ ixtaraqoo fent nañ la wañeel yàlla bani na doom yu góor wa banaati doom yu jigéen bi xëy na ñu ci loolu doomu yàlla la xaalu ay su xaalu ba ñu waxee ne Useyru Useyru doomu yàlla kooku góor la waxuñ dëgg waaw ñeesa bon nañ ko ci doom yàlla yi yàlla amul doom waaw wal malaayikatu malaaka yi ñu ne ay jigéen lañ waaye banaatu laay doom yàlla lañ ñu ne malaaka yàlla lañ jur waaye ay jigéen lañ dañuy nar boo ne subhaanahu wa tudd na ma sellam tanzihan maa ngi sellal la ñeel ko wa taala jëmm naa maay si bona ci lañ koy melal de jëf ju bon ak melo yu bon yooyu ñuy wax di ko askane yàlla yàlla jëmm na di am doom naka la yàlla di amee doom koo xam ne nekk nga ci jamono yoo xam ne dara nekkul ak yow lu toll ni mbaggam yow amut yow rek yaa fa nekk du espace du jëmm du dara lu mën a nekk ak yow ana kooku nu muy amee doom kam nga ne jom mun a muy am bokkaale jom mun a doom moo tax yàlla koo xam xam ne doom dafa jomm ci moom waaye bokkaale dafa ci moom ana lu tax nga mën a am doom ak ana luy doom doom mooy dogit bi nga xam ne génnee na ci yow waaw kooku dogit la ci yow ana lu tax nag mu mën a ci yow ndax da nekk ci barab waris barab waaye yàlla moom amut barab waris barab de yow mi nga xam ne am na barab boo nekkul léegi fa nga nekkul nag boo génn looloo waral nag nga mën a dara ci yow waaw waaye bu doon yow moom yow rek yaa nekk xanaa mën a génne dara fu muy nekk ak fu génnee waaye ndem yow am nekk nga fi leneen nang fi yow moom dara mën naa génnee ci yow dara mën naa jaayee ci yow génnee ci yow ndax yow rek yaa fi ne waaye yàlla mi nga xam ne nekk na ca coy dara nekkul woon ak moom ana kooku nu mu amee doom kooku xam nga doom jomm na ci moom ana kooku na mu mën a amee bokkaale waaw kooku bokkaale jomm na ci moom moo tax ñaari yàlla dafa jomm mu am. subaana tudd na ma sell ma tan jiyaan daa ji selloo wa taala jom naa maay si fóona ci dañ koy melal rek laa wax de yàlla melo yu bon yi nga xam ne ñu koy melal ko dafa jomm ci moom rek mënu nekk waaw doom it ku lottu ko soxla yàlla lottul bay soxla doom ba dimoo samawaati mu lay ji fent asamaan yi juróom-ñaar wala def suuf juróom-ñaar moom dimoo maa moo leen fent ci lu misaal bu jiitu yàlla xool dara dafa xëy xëy rek amal asamaan ak suuf xëy xëy nag waxin la waaye yàlla moom xëy ngoon amut fu moom moo bind lépp bind asamaan ak suuf buur bi moom asamaan moom suuf buur bi moom nguur yi buur bi moom yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam buur bu moom way njëkk ak way mujj buur boobu góorgóorlu ba xaritoog moom moo gën xaritoog leneen an naa yakoonu naka la nekkee law di ko ñeen wala dun doom walam takkun ta nekkul loo saahiba dun soxna muy zawjatun jabar yàlla mi soxla wut jabar amul jabar yàlla moom naka lay amee doom rek laa waaw yàlla mënul am doom amul jabar kon du am doom wa xalaqa bind na kulla shay'in lépp lëf waa boobay tontu réy ba nag waa min saani bokk na si mbiram an yaxluqu lépp lëf de woo moom yàlla moomu ali mun aji xam la mu bi kulli shay'in ci lépp lëf tontu bu sew a ngi fii nag naka la yàlla di amee doom taxamul jabar rek laa wax de xam ngeen lay baax mooy balaa lenn di am doom mu am jabar waaw jabar jaa koy jural doom yàlla nag mi amul jabar moom far kooku xam nga ne soxlawul doom ndax bu soxlawoon doom dana sàkk jabar du ñàkk ku ne waaw mën naa bindu doom rek saa jabar ndax bindu na fi nit waaw te jaarewut ci jigéen kon mën naa bind doom saa jabar comme ni mu def mu nekk mooy wa xalaqa kulli shay'in te bind ne lu ne du jabar gi rek mooy la ne yàlla mun na doom loolu misaal la ci yàlla amul jabar kon amul doom waaye moo bind lépp kon mu am doom am na lii loolu ku bind lépp mooy koo xam ne nekk na te dara nekkul woon rek laa de su fekkoon ne am na jamono boo xam ne espace bu toll ni mbagg yow mu ngi nekk ak yàlla ba yàlla di bind foofu la jëlee bind a ah, su boobaa nag loolu yàlla bind ko moom ndax loolu moo yàlla ñoo fi nekk ndoor waaye bu yàlla ne bind moo bind lépp rek daf laa bëgg a jàngal moom rek moo fi nekkoon waaw dara nekkul fi woon ak moom lu toll ni mbagg yoo lu toll ni waaw lu a tuuti mbagg yoo lu toll ni sànq xamul woon moom rek moo am te lu yëpp mooy ki ko feeñal waaw ku mel noonu nu muy amee doom mooy la nag ki bind lépp xam nga ne xam na lépp yow rek yaa fi nekk lu xam yaa ko bind yaa ko sos kooku dara mënu ko wom puum ndax lépp moo ko tëral de moo tax xam gi yàlla xam lépp kooku xemewut waaye yàlla na am doom ndax moo bind lépp rek ku bind lépp naka la mën a doom wala nga ne bu am na doom xanaa léppay doom ndax moo bind lépp loo mën a gis ak mbindeefam la waaw bu mu sof waaw soo tànnee lenn ci mbindeef bi ne doomi yàlla la waxal ne yeneen i doomi yàlla la yàlla amul soxla doom rek de daalikum kooku allah moo di yàlla rabbukum mooy seen borom kii ma wax nii nga xam moo bind lépp ba muy am dara amul woon moom amul jabar soxlawul ko amul doom moo defar asamaan ak suuf moo xam lépp kooku yàlla mooy seen borom mooy rabbuku mooy seen borom ah am nañ borom bu màgg nag laa ilaahum benn buur ñu war a jaamu illaahu lu mooy moom xaaliqu kulli shay'in mooy bind lépp lu nekk de moom rek mooy ki nga xam loo gis moo ko bind waaw yàlla bind lépp rek doo yenn jës bu waaw fu ci boromam waaw mu ngi doon daal ko yàlla na mu jub daal du jub faam bu du wéetal leen ko waxi doo wéetal leen ko rek laa wow moom yàlla moomu wakiilun aji wattu la wo aji wattu la ala kulli shay'in ci lépp lu nekk de wakiilun mooy xafiisun aji wattu la lu ne rek yàlla koy wattu rek laa wax leen laa tudrikuhu du ko peeg arabu saadu bëri ñu ne laa taraahu du ko gis waaye firiwul loolu da al idraaku jot xayru yéedu du gis yara dana gis al insaan doomu aadama shay'an dara wala yudrikuhu te peegul ko ñëwal Dakar rek dana gis Dakar waaye peegoo Dakar nag na am na foo gisul wow moom ala busaara bët yi yaraha dana gis lépp way dina ko ah, mu feeg lépp de kamaana moom comme nañ ko xamee wala nuduru ko waaye ñun jotuñ ko ñoom yàlla waaw naraaw mën nañ koo gis gaa waaye wala nuduru ko duñ ko jot boobu moom yàlla allatifu maa ji ñeewanti baawle ay ci ay wala yow alxabir maa ji dañ kumpa bim ci ñoom rek laa de yàlla ñu bokk ci yooyu qad jaakum dikkal leen basaayiroo lay hujjatun lay yu weex tàll ñëwee na wet ak yàlla min rabbikum tukkee seen borom fa man abu ku gis lay yooyu ay man abu ku gis lay yooyu fa amana mu gëm fari nafsi ñaan na boppam maanaam tiyaabaab gëmam gi ci moom lay dellu waaw dégg nga abu ka nga xam ne gis naa kooku tiyaaba gisam gi lay delloo lenn sawaaba yu ndax tiyaaba gisam gi law ñeel na ko laa de bu mën am yee ku gumba xanaa waris la yooyu faddal la mu réer faale yaa bakkaar bi war na ko ay wabaalu idlaalihi musibaak réeram googu kooku ci kawam lay dellu ki gis lay yi daal di gëm tiyaaba gi moom moo koy ci moom lay dellu waaye ku gisul mel ni ku gumba weddi yàlla bakkaar ba ci kawam lay daanu de yonent ne wama ana den man bi xafisin di aji foglu aleykum ci yéen raqibu nekkuma aji foglu li am aleykum seen jëf yi innama ana naka man nazirun aji waare laa yonent ne man damay waare rek waaye yàlla moom mooy ki leen di foglu waaw te dana leen fay wa kazalika comme niñ leeralee lañ tudd léegi kama bayyana comme niñ leeralee ma zukira lañ tudd nu sarifu la ñuy leeralee nu bay lañ leeralee ala yaati kaw te bii wane suñu kàttan li yantaviro ngir ñu xalam wala yaqulu ngir ñu waxal kufaar fi aqibati am ni ci mujj mbir mi ne darasta yow mi la jàng waaw danañ indi kawteef mu di alquran wax nañ la kawteef yi waaw mooy teef yàlla ba dégg moo tax léeg-léegi kawteef yi yàlla wane na ko ci xalak gi ma la goon mbooloo yàlla wane la ko ci asamaan yàlla wane la ko ci yàlla wane la ko ci suuf léeg-léeg yàlla wane la ko ci guddi yàlla wane la ko ci bëccëg kon xam nga la mari bi yàlla bi dara génn ko ka moom la yàlla waxaa su nurihim ayatina kitaab alxaqim wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alxaqu yàlla dana leen wan kaawte bi ci gox yi waaw ah, ak seeni bopp waaw ba mu wóor leen ne yàlla rek moo dëgg de dégg kon pour nga egg ci xàqu boobu foo nga xool ci kawteef yi kawteef bi nag moo di téeb yàlla ba téeb yàlla bi nag dara génnul ko rek laa de waa nag waa ñu ko yàlla ko mën a xam dégg nga niñ leeralee lii ñu tudd léegi noonu la ñuy continuer rek di leeral kawteef yi ngir nit ñi xalam waaye véri ñoom booy leeral kawteef yàlla ñu yow da ngaa jàng rek yow yonent bi li ngay wax nii xam nga ne lii ko jàng ko mën a wax xanaa te jàng nga kutubal maadina téere bay passé téere way njëkk yi moom nga jàng waaw ñoom loolu la ñuy wax wala nu bay noo danañu leeral ko li xaw mi ñeel nit yàlla moo nañu xam kawteef yooyu ko leeral ñu xam ku xam yàlla xam ne moom rek dégg waaw mooy ki am am ak dëgg buur boobu kenn nax ne moo la yónni waaw sa mbir di ree ni mbiram yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu dëgg laa lu gën a set lislaam nit gisul ko lu gën a jaaxal lislaam ci noonu yàlla yi nit gisul ko ci kaw suuf waaw loolu dafay wane rek ne waaw yàlla mi nga xam ne mosu fee jug moo yónni yonentu moo tam mbiram di di kawe saa su nekk rek laa wax de àddina yëpp buñ dajee mënuñ koo daane xolatee àddina si waaw yàlla feeñal ne julli ñoo ci gën a néew doole waaw ñoo ci gën a tumuranke waaw matuñ xëy sax wala ngontu noonu yàlla yi ñoom nag ñoo yore alal ju ji ñoo yore ngandaay yi dégg nga ñoo yore mbooloo yi sarte combat ak mbooleem yi xalak àddina ñoom ñoo ko yore waaye saa su nekk ña ngi ragal jullit ñi ñemuñ leen sax xool waaw bët bu dëgër waaw ñemuñ leen def dara saa su nekk ñu leen di bàyyi xel xam nga ne ñooñu am na keneen ku leen aar lu te borom bi de waaw lañ nekk ci dëgg nag moo tax mu aaree leen loolu rek laa de la ñuy bon bon yàlla aar na leen ba noonu yàlla yi mënu ci ñoom dara di nekk nag jullit ñi ñu bëri wàcc na yoon yonent bi nekk ci yoon mu bon waaye teewul yàlla ngi leen suturaal de dañoo nekk ci dëgg rek laa de mooy topp dina yonent bi wal nu béy noo danañu leeral kaw te fii la xaw ma ñeel nit ña yàlla mën a yooyu danañ xam de itamit toppal. maa uuxiya la wahyof nañ ilayka jëm ci yow min rabbika mu tuggee sa borom alquran moo di alquran de yow daal toppal alquran mooy wax yu ko jugee ci yàlla ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laa ilaaha mu benn bur ñoo a jaamu illaa olu mooy moom yàlla waaari dëddul nag anil mushrikiina ci way bokkaale yi bokkaale kat yi wan leen gannaaw walaw sha Allah bu soo woon yàlla maa seekoo bokkaale wuñ ñooñu di bokkaale bu neexoon yàlla duñ bokkaale de waaw waaye yàlla na mu ci ñoom loolu wama jaan laa ko defuñ alayhim ci ñoom xafisan aji wama jaan laa ko defuñ la alayhim seen kaw xafisan nga aji fuglu ay raqiban da aji fuglu di xool la ñu war a def ak lu ñu war a def dal seen kaw ak nangam yàlla sant yow bàyyi leen rek lañ nekk yàlla koy fay wamante di yow bi wakkil da aji mbëru alayhim seen kaw fatu fatu mbirum ba ngeen di forcé al ci gëm yàlla ga gannaaw ko ne mu xeex bu ne wala tasubbu bu leen saaga alladina gaa nga xam ne yad'una danañu jaamu min dunillahi ci yàlla de ndax fa yasubbu danañu saaga laa yàlla du ci noonu saaga xërëm yi ŋàññi xërëm yi jaamu yàlla la ndax xërëm du tus te bokkaale nañ ko yàlla kon jar naa ŋàññi waaye bu dee boo ŋàññee xërëm mu andi lu gën a bon loolu maanaam mu andi mbir mu bon te moo di yàlla su boobaa ŋàññi xërëm yi xaram kon topp yàlla goo mën a gis bu dee dafay xëcc yi ci mooy yàlla goo xam ne nii moo gën a rëy ba topp yàlla googu su topp yàlla googu mooy yàlla lay mujj doon nasaral wàcc na fi jamaatin ci mbooloo saboo ngañi nañu asnaama xërëm yi fa saba mu ngañal kufaar yi firal moola yàlla jël na màgg na waala kawe na cey ana nan mooy xërëm ci kanam borom bi de qaala taala yàlla ne wala tasubbu bu leen ŋàññi allazina ñi nga xam ne yaduna danañ jaamu min duunillahi ci lu yàlla mu asnaama xërëm yi fa yasubbu kon ñoom danañ ŋàññi allah yàlla aduwan cig noono ay antilaan ci jàggati wa zulmun ak tooñ bi xëyreen min ci lu dul xam-xam danañ ŋàññi ci lu dul waaw xam-xam deg laa wax de nda xamuñ yàlla buñ ko xamoon duñ ko ŋàññi de fa ala haza boo sukkandikoo ci lii kullu taatin bépp topp yàlla te juru dina xëj ilaa ci moo yàlla goo xam ne moo gën a bon fu bàyyi topp yàlla googu bay ya xamal ne topp yàlla googu maasiyatun moo yàlla la de bu dee daal topp yàlla gi boo ko defee moo ndi moo yàlla goo xam ne yàlla googu moo gën a garaaw sax ba topp yàlla googu su boobaa jëmmi topp yàlla googu moo yàlla lay mujj doon laa na sabal asnaami ndax saaga xe nga ŋàññi xerem yi ibadatun jaamu yàlla la walakin waaye la maa jëre ba mu xëccee nit ñi ilaa sabilillahi jëm ci ngañ yàlla mu ne oo teref nañ leen min zalika ci loolu de ba nga xamee dafay waral ngañ yàlla moo tax ñu aay leen ko kazalika nako noonu zayen na taaral nañu li kulli ummati ñeel bépp xeet amalum seen i jëf mu ne ci lu baax waxseet ak ay xeet wu nekk rek yàlla taaral na ko seen jëf gis nga groupe yu bon ya lu bon ay rafet ñoom ñu baax ñu lu baax lu lu rafet ñoom ndax xeet wu nekk la na mu ci ñoom noonu la bëgg ñu jëf moo tax dafa koy taar daf leen koy taaralal yàlla yàlla taaralal ñu njub summa ila rabbihim topp jëm seen borom marjihum moo di seen delluwaay fa yu nabbiwum dana mu xibaar leen bi maa kaanoo ci lañ nekkoon yaa mënoon doon ko def fa yu jaazim te fay leen ko de yéen ñëpp ci yàlla ngeen dellu te lépp la ngeen doon def dana leen ko xibaar dana leen ko fay rek laa wax de waaw waa samoo gëñ nañ ñoom ku faaru billaahi ci yàlla jaada aymaanum seen doyob ngëñ ne la in jaatum dem dikkal ne leen aayatun benn kawteef mi maxtaroo ci lañ sàkku la yuminuna danañu gëm bihaa ci kawteef de ñu ngay gën seen kémt laa kàttan ne bu kawteef ñëwee danañ gëm waxuñ dëgg xul waxal inna man aayaatu naka kawteef yi inda laahi ma nga fa yàlla yàlla koy wàcce saa yu ko neexee rek laa wax de wa maa yushurukum ana lak yëgal ne leen an naa na kawteef yi isa jaat nam dikk na laa yuminuna duñ gëm ana lan moo leen xamal ne bu kawteef ñëwee duñ gëm maanaam kawteef bu ñëwee man nañoo ñàkk gëm waaw te buñ gëmut waaw yàlla la xeet wi yëpp loolu war na yàlla du wàcce mukk kawteef ci caaxaan de li si kawteef ci yonentu bëri na waaye mooy soo ko soob ko rek ci yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam bu xeet wi gëmut su boobaa duñ alkum waaw waaye boo laajee jëmmi kawteef sàngam ne defal sàngam buñ ko defee boo gëmul rek waaw yàlla alak xeet ah, yëpp de xeebéri màkk yi nag laaj na yonentu waaw ne ko ne ni kawteef yonent bi waaw xotti weer wa waaye la tax xalaguñ xeet wi yëpp mooy ñoom dañoo laaj kawteef rek waaw yonentu xotti weer wa waaye gëmuñ waaw waaye buñ laajoon kawteef sàngam bii rek lañ bëgg wàccee lii yonentu yàlla wàccee loolu gëmuñ dañuy alku rek tuuba xeetu xaal ko na yàlla nag du xaal ak xeetu la sabaqa jiit na fen mi laay ci xam-xam yàlla anam nañu ma xibin laa yi mu ne duñ gëm moo ta yàlla ne leen ana lu leen yëgal ne kawteef bu ñëwee du ngeen ko gëm maanaam yàlla xam na ne yéen du ngeen gëm kon du wàccee kawteef di ngeen sàkku mën naa wàccee kawteef ku ko soob nag laa wax de wunu xalli bu danañu jàllal bi afidatum seeni xol naxulu danañu wëlbati xulabum seen xol anil xaq walis dëgg moo tax dëgg dëgg mbir yaa ngi ci loxo yàlla yàlla nee bu kaawtee fi ñëwoon bu ngeen bëggee gëm saaf yàlla tourné seen xol yi ngeen dellu ci kéeféer waa bu saarahum mu tourné seen i bët yi anil bu saari xaq du ngeen gis dëgg falaa yu noonu du ngeen gëm nag duñ gëm nag yàlla mooy tourné seen xol yi duñ nangu dëgg tourné seen bët yi ba duñ gis dëgg ndax duñ gëm yàlla deful loolu par hasard nag loolu yàlla def hikmatu gu rëy mënte koo xam ne nii waaw aarifuna billaahi xam nañ ko rek laa wax de kamaal mi yuminoo comme ni nga xam ne déggaluñ bii ci moom wala maratin jël benn yoon nañ kawte bu njëkk yi ngeen weddi bu dee xool yàlla li ñëwaat ngeen weddee wa nazarum danañu bàyyi leen natrukum danañu bàyyi leen fii duxyaanim seen ak réer dalaalim seen ak réer yaa moo nañuy deng-deng yataraddadoon ñuy deng-deng mu tax ci mbiram yonent bi dëgg la am du dëgg danañ daal بدين يوري دال لي القران عليه اللهم صل على سيدنا محمد يريد الاسلام استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته